salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel dal leen ak jàmm ci euh, xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel màggal Touba gi xibaar yi nag euh, tey jii dañ koy dooreek rek euh, visite bi nga xam ne benn délégation bu bàyyeekoo ci réewum Mauritanie délégation boo xam ne président Mohamed Ould Al Ghazouani moo leen yebal fii ci dëkk bu sell bi di Touba jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllum enseignement supérieur ak lépp lu jëm ci wàllum diine gi foofee ci Mauritanie ñu ñëwoon ci xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir doon ko ndokkeel ci wàccaay màggal gi waaye indi ay giléem yu takkoo takku yoo xam ne na ko Mohamed Ould Abdel Aziz daan defee muy président bu fa jógee noonee la ko président bu yees bi defee xamal sëriñ bi ne day door a toog rek moom moo tax mu yebal fi sax délégation bu toll nii waaye bëggoon na délégation bi gën a yaatu ñoom ginnaaw bi ñu gisanteeg sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadir Euh, sëriñ bi nag fësal na leen mbégteem Cheikh Maodul Mountakha waaye it biñ ziaree Cheikh Maodul taxa am na ay euh, cadeau yoo xam ne seriñ bi jox na leen ko lépp rek mu jëm ci li nga xam ne moom moo di màggal gi. mbokk yi ñu wéyal ba léegi xibaar yi nga xam ne mooy bàyyi ko fii ci Touba ci màggal Touba gi euh, ki nga xam ne moom moo di maître Madické Niang ñëwoon na fii ci Touba mbake moom doon ziare ki nga xam ne moo di xalif général des Mourides waaye tamit. ki nga xam ne moo jiite comité d'organisation bu màggal gi di Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr mu ziar ko waaye it ñëwaat ci euh, jubóo gi nga xam ne am na ci diggante ki nga xam ne moom moo di euh, président Abdoulaye waad ak euh, président Macky Sall loolee ki nga xam ne moo di Serigne mun daa koy réussir waaye mu nekk lool ki nga xam ne moom moo di maître Madické Niang rafetlu na ko ñu ànd teewlu kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci kanam Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr mooy xéewal boo xam ne yàlla daf la wàcc ci àddina bi rawatina Sénégal nga defar jikko yi defar xol yi jël yoon wi gën ko téye moom xéewalu yàlla la feeñ na ci masalik gi masalik képp ku gëm sëñ Tuubaa képp ku sopp sëñ Tuubaa dëgg na ci mazaalik gi xam na ni sëñ Tuubaa am na ndam léegi de werante amatul wax dëgg yàlla ñépp a xam àddina bi yépp xam na ni sëñ Tuubaa yàlla fay na ko ba mu ko fayee jumaa jooju xam ni ba fi nu toll ñépp ngi fay dem di ko yéem te Mbàkke loolu muy sa liggéey ndax danga am chance liggéey bi ba mu tàmbalee ba tey yow la si sëñ si sëñ saaliwu la jëkke te boobu ma xam sa diggante lool ak sëñ saaliwu plan yi nu jëkk indi sëñ saaliwu moom si boppam moo doon wax redaat leen nii defal leen que nii waaye ba mu ñëwee si loxo sëñ baara la tàbbi sa loxo rawatina nag liggéey bi nu liggéey yëpp ci jamono jàmbaar jooju nga xam ni yàlla nanu ko yàlla fayal sëñ Cheikh Sidi Maxtaar liggéey bu rafet liggéey bu rëy la liggéey ci jumaa ji kon ñun yoonu murit am na nanu sas am nanu sas lu tax ñu am sas mooy wane na nu àddina bi yëpp am nanu koo xam ni kenn amu ko kon war nanu góor góorlu fu nu toll di wane ni ñun mérité nañu am Serigne Touba. mu nekkoon kàddu yi ma Madické Niang yi nga xam ne yëkkati ko ci kanamu Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre bi mu ñëwee ci màggal gi doon ziare. ba léegi mbokk yi beneen délégation boo xam ne ñëw na fii moom moo di délégation bu Pastef ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko jiite ko ñoom it ñu ñëwoon doon feddali seen kóllëre ak euh, Serigne Mountakha Mbacké Bachir waaye it comité d'organisation bu màggal gi. moom Ousmane Sonko ginnaaw bu mu ziaree Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadr waxtaan nañ fa waxtaan wu am solo mu jëm rek ci euh, feddali seen wëlëre ak sëriñ bi. waaye it li jëm ci euh, màggal Touba gi loole lépp waxtaan nañ ko ci jotaay boo xam ne ñu ko doon amale ci résidence Khadim Rasoul ñu ànd teewlu kàddu yi euh, Ousmane Sonko. ñu ngi gërëm ñëpp di sant yàlla bu baax julli ci yonent bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi di Euh, màggal borom bés bi di Cheikhul Khadim Serigne Touba nga xam ne tey moom la ñuy àndal màggal yàlla ci lim ko defal euh, di ñaanal yàlla ki nga xam ne tey moo fi Serigne Touba sëñ Mountakha Mbacké di ñaan yàlla mu yàgg fi lool ànd ak wér. yàlla may ko li nga xam ne mooy ay ndalam di projet am yàlla may ko mu yeggale ko ci jàmm suñu teewaay fay fii Touba rek euh, teewaayu jullit bu ñëw ci activité bu mag bii la di màggalu Touba niñ ko defee ren nag dañ dañuy ñëw lépp li nga xam ne fii suñuy wëllëre la ci biir dëkk bi xaju ci sax waaye nag ñu am luñ ci tànn rek fexe ba ziar moo tax yegg si nañ fii gannaaw bi ñu jógee Ndakaaru egg si fii booru 4 heures jaar nañu ki sëñ Fallou Chouaib bu nga xam ne sama sëriñ la sama xarit la sama conseiller la mu dalal ñu ber nañu ñaanal ñu ñu jóge foofu dem ziar sëñ Amadou Muxtaar nga xam ne moo ñu dalal ci màggal gi eh, bañ fa jógee it lañu ñëw yàlla may ñu ñu fekke géef yi julli ko ci gannaaw euh, sëñ Mountakha Mbacké gannaaw julli gi mu ñaanal ñu waaye recevoir ñu ci lu gàtt euh, ñu nuyonteeg moom saafonteeg moom mu defal ñu ay ñaan kon yoon la woon bu ñu génnee foofu nag ñu woyale suñu tànk ba fii fekk fii ki nga xam ne moom la tarixa bi dénk kàddoom mu sëñ Bass Abdou Khadre moom it mu dalal ñu waxtaan ak ñun Euh, waxtaan bu xóot sax wax waxtaan bu philosophique ba pare euh, ñaanal ñu yeewi ñu ñu fas yéene nag continuer ziar yi ndax am na yeneen kilifa yoo xam ne moom la ñu war a dem seeti nii moo tax taxawaay bi du mun a gudd ndax dañuy bañ balaa ñuy yegg yenn kilifa yi fatu kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal sénégalais yëpp képp kuy yëkkati tànkam pour ñëw ci màggal bi yàlla la yàlla andi sàcc si jàmm nga fekk si waa Touba si jàmm màggal ci jàmm delluwaat fekk say mbokk si jàmm fa nga leen bàyyi. mu nekkoon kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko ci nemmeeku nga xam ne mu ko doon amal fii ci Touba Mbacké keneen koo xam ne ñëwaatoon na fi moom moo di Matar Ba nekk jëwrin fii ci réewum senegal waaye it nekk taalibe Cheikhul Khadim moom ñëwoon doon yi moom it euh, Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir ak xalif général des mourides ci wàccaayu màggal gi ginnaaw nemmeek googu am na kàddu yoo xam ne moom it ko ñu ànd teewlu kàddu yu ministre Matar Baye bu ñu santee xalif ba pare dañ lay sant man personnellement sa taalibe maa lay sant ci sa taxawaay ci réew mi waaye ci sa taxawaay ci njaboot gi dafa am jëmu yu dalal xel te sa jëmm bokk na ci ñi nga xam ne day dalal suñu xel ñun parce que bu ñu la gisee jàng ci bu ñu la dégloo it jàng ci moo tax tey ñu ne dinañ ñëw ziyaare la ñaanal la yàlla yàlla yàggal la fi yow tamit te nga wër yàlla kattanal la ba fi nga bëgg a yegg ci yoon wi yàlla yeggal la ko fi sëriñ bi damay sant ñi ma àndal yëpp ñenn yi di njoppatu sëriñ Touba. li tax ma leen di sant xam naa ne cër moo tax bu ma duggee ci dëkk bi lu ñu def ñu bàyyi ko ñu ànd fu may siyaaree ñu ànd te am na lu bari lu ñu waroon a def yi waaye nag nit bu la jàppee boo gisee ki nga xam mooy seen kilifa nga jote ci moom danga koy seede ñii nga xam ne njobootu Serigne Touba lañ dëkk Touba maa ngi leen di sant di leen gërëm ci taxaw bi ñu taxaw sama wet bu fi ñëwee taxawuñ nag sama wet taxawaayu politicien waaye dañ taxaw en tant que taalibe ak ay sëriñam waaye ay ay nit ak i mbokkam. mbokk yi loolu nekkoon nemmeeku yi nga xam ne ñu ngi ko amal fii ci résidence Khadimou Rassoul di kilifa yi nga xam ne ñu ngi ñëw di ziare si ci wàccaayu màggal gi. mbokk yi xibaar yi dañ koy tëjeek euh, fi nga xam ne moom moo di ca daral bi nga xam ne moom moo nekk euh, ca Ndindi di daral boo xamante ni taalibe yi dañ fay dem di fàggu ci li nga xam ne moo di gileem xar nag. ba ci bëy yi lépp rek ngir waajal ganu Cheikhul Khadim yi ci li nga xam ne moo di màggal gi nga xam ne mooy fukki fana ak juróom-ñett ci safar loole ñi nga xam ne ñoom ñoo di jaaykat yi nee ñu ñi nga xam ne ñoo di taalibe ñu ngi jënd si bu baax waaye woyefal nañ njëg yi kon ñu ànd teewlu micro trottoir bi nga xam ne amal nañ ko ca daral bu ndindi bi. ma jooju gi laa tudd dëkk Touba euh, màggal si woon euh, and ay nag lañu wut si woon yoo xam ne dañ koy def ci bis bi. yooyu daal lañ ko lañu lañ ko siiwoon yàlla waaw waaye nag euh, san sëñ bi rek ndax moom dañ koy di ànd xol bu neex waaw luñ ci mën a fere tamit sunu xol day sedd guy ci fere moo tax ñu ñëw fii ngir wusi ci daral gi waaw sunu daal euh, fayal ñu sëñ bi daal waaw loolu moo tax waaw euh, fàgg nañ lu mat ñeenti nag ñu ngi nii ci kaw juróomi nag ngir bernde waaw loolu loolu kese moo tax ñu fàgg ko nag yi nag moom seer na lool waaye sëñ bi jaral nañu lu ko ëpp waaw buñ doon mélange suñu bopp def ci tamit dañ koy def waaw ñu ngi ci bu baax baax a baax a baax. lan mbégte rek mbégte lañ ci yëg ak xool bu neex xol bu sedd guy ndax sëñ bi moom wax dëgg yàlla moom ku xool lim lay defal ak lim lim la fayee euh, doo am ak jaaxle ndax màggal gi bi mu waaj ñëw wax dëgg yàlla su ma la nëbbul ñu woon dara waaye bi nga ko ñaanee ni ko sëñ bi bëgg nañ la berne gan yi suñu boom da ko daal di yombal waaw kon suñ tubaab yàlla nañu moom màgg loo ci def boo déwénee da def lu ko ëpp waaw loolu daal moom gis nañ ci bu baax a baax a baax. waaw. Jili laa tudd Jili Guèye. oui. Euh, dañ doon xool si nag yi. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant Serigne Touba bu baax a baax li ñuy def nag lépp rek ngir sëriñ bi moo tax ñu koy def waaw parce que sëriñ bi rek moom moo ñu ko mënal waaw. moo taxoon ñu ñëw ci daral gi nii pour xool si nag yi waaw. dañuy jënd si nag waaw dañuy jënd si nag waaw waaw pour màggal gi teeru gan ñi teral leen waaw loolu rek moo taxoon ñu ñëw ci daral gi tey waaw sant Serigne Touba rek bu baax a baax waaw. njëg gi moom taw feexe na tamit en plus parce que ki ñu jaay nag yi suñu papa la moom da ciy def taw féex bu baax a baax a baax a baax waaw. Abdoulahat Diaw mooy wax Abdoulahat Baara Diaw. da nga waaw dañoo ñëwoon ci daral gi fàgg si gileem lépp rek xar ak nag ak gileem ak lépp leen jënd euh, ngir terale ko gani Serigne Touba yi li mu wax ne ñëw leen sant ma yàlla sunu borom loolu ci lan taxaw euh, doon ay taalibe nekk jëwrin euh, yoo xam ne si ci kër sëñ Abdou Lahad Baara kër sëñ Assis Laat Baara ci kër sëñ Xaadim moom sëñ Assis Laat Baara ci ndigalam lan ñëwee fii ci daral gi fàggu ay gileem nag xar pour euh, teral ay ganam rek ak gani sëñ Touba yi nga xam ne ñoo ñëw ci bis bi. njëg yi xéewale na xaw naa kowe nag léeg-léeg gileem yi daal moo gën a kowe euh, nag yi moom nag yi moom prix tubaarka la xar yeet xaw naa wàññeeku moom waaye gileem yi daal moo cher lool waaye nag lépp sëñ Touba attan na ko mën na ko. Euh, te te ñi xéwale nañu ko ba euh, poos yi taalibe yi ñoom lu lu lu lu lu ne leen nangam la rek ñu ñuqi joxe. ba lépp mat na fi mu toll nii ay oto lañ bëgg a jël jàpp suñu gileem sarse dem yóbbu. Baba Fall. yow fekk nañ la ci daral bi. waaw ñu jaayee gileem yi. waaw waaw ah, wax dëgg yàlla njëg bi neex na baax na bari na te xam man fii laa bokk bokkuma ak gan yi fi ñëw man fii laa dëkk fii laa bokk. te daral bi macha allah jàmm ma fi nag te gëléem yi jar na jar bu neex te de magal des na tey ak suba xam naa li ci des xam naa dina jar sant yàlla ak sunu borom waaw. njëg gëléem yi njëg gëléem yi am na yu jaar 750 am na yu jaar 800 ba 350 ba 400 njëg yu neex nag wax dëgg yàlla. gëléem yi baax na tamit. gëléem na nañu waaw. kii ñi jënd ñu ngi ñëw bu baax. sax ñu ngi ñëw tey léegi na ñëw tey ak guddi xam naa ak suba. te xam naa léegi na yaakaar waaw te gileem yi am na fu mu jar nii ba Paris li ci dese xam naa ni fii ak suba xam naa dina jeexe te njëg bi baax na te gileem yi sóor nañu. client ñi ngi ñëw alhamdulilah macha allah. mi ngi sant yàlla bu baax ak borom Tuubaa te man taaliba la bokk waaw baax na jërëjëf marhaba baax na jërëjëf. mbokk yi micro trottoir boobu nga xam ne ñu ko doon amal ca daral bi nga xam ne moo nekk ca Ndindi. moom lañ tëjee xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel màggal Touba gi di leen sant bu baax di leen gërëm ci ànd bi ngeen àndoon ak ñun fii ci Touba Mbacké dig leen daje ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar ci jëm rek ci le grand màggal de Touba 1441 jërë ngeen jëf.